politique dafa di organisation boo xamee ni dafa jóg ni dama bëgg lu yokk réew mi ndax Cheikh Abdoulaye Dièye moo doon wax ni politique mooy sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan. kon defe naa ni parti ñoo war jiitu ci taxawaay boo xam ne dafa war a yar doomu aadama yi jox leen xam-xam ubbi seen xel joxe leen ay information ki jumtukaay yoo xamee ni dina baax ci seen jëmmi yaram. baax ci seen santé baax ci seen xel baax ci ñuy téye seen kër baax sax suñuy participer ci développement réew mi loolu moo tax ñun ñu créer centre pour l'éducation à la citoyenneté di barab boo xamee ni dañ fay tàggat sénégalais yépp nag may leen jumtukaay pour ñu mën a xam lan mooy seen cër ak seen warugar ci réew mi ñu bokk c'est important ndax citoyenneté kenn du ko judduwaale dañ koy tabax ci doomu aadama loolu mooy suñu cër mooy suñu yéene mooy suñu taxaw moo tax tey jii si ñu woote ci journée internationale du cancer bii passé fas yéene waxtaan ci wàllu cancer ci góor ak jigéen woo spécialiste boo xamee ni Sénégal yëpp xam nañu xam-xamam mu am lu ëpp fanweeri at ak juróom-ñett di ci liggéey taxaw ci association yi gën a mag mu indil ñu ay xam-xam yu simple ay waxawaay ak leeral yoo xamee ni ku ko jëfee ku nekk. mucc ci affaire boobu ndax dinga teel a dem teel a fàggu balaa mbir mi di egsi si yow ndax wax nañu ni ku ko teel a fàggu da nga koy daal di faj te du am jafe-jafe te waaye boo ko bàyyee mu tàbbi ci sa biir day daal di miiraas kër ga miiraas ña fay liggéey miiraas njaboot gi yëpp te nit ñi. gumbatal na lan leen lu dul tëbi teen jamono yii. man ak yéen ñoo xam ni réew mi dafa tar dafa metti buñ ci boolee ak feebar yu bees yi day gën a jafe loolu moo tax ñu woote pour ku nekk xam ne lan mooy sa warugar si mbir mi. waaw waaw ndax feeñ na leer nañ ni suñu priorité dootul paludisme. du sibiru suñu priorité dëgg-dëgg mooy maladie cardiovasculaire yi ak wàllu diabète et surtout cancer jëm ci góor ak ci jigéen modèle yëpp professeur indi na ko leeral na ko man dama tiit sax ci biir waxtaan wi. dama dama dem ba yëg ci sama bopp ni waxuma sama jëmmi bopp mais bu ma xoolee sama biir kër xool samay xarit xool samay am di jàmm xool réew mi damay tiit xam ne nag dëgg dëgg nag ñu ngi am jafe-jafe bu mat a mat a mat te lii waxuma état waaye kuy sénégalais ku nekk da nga war a may nopp. ñii ñii di docteur moo xam professeur Kassé la moo xam ku mu mën a doon mu xettali la dimbali la nga xam nan nga war a taxawee ak nan nga war a fege sa bopp fege sa njaboot si góor ak si jigéen ngir ñu mucc si mbir mi ndax amuñu xaalis boo xamee ne mën nañ ko taxawal pour mën a faj suñu bopp su fekkee dal nañu. vous savez le le rôle et la mission des formations politiques c'est d'éduquer c'est de former. c'est d'aider les citoyens à comprendre les mécanismes du développement et l'ensemble des situations qui peuvent être problématiques pour leur santé, leur cadre de vie, leur évolution économique, leur pouvoir d'achat. Une formation politique doit avoir pour mission d'aider les citoyens à comprendre ce que c'est que la citoyenneté et la participation. C'est la raison pour laquelle des FSDBJ a installé ce centre pour l'éducation à la citoyenneté dans le but de former les citoyens et de manière non discriminatoire sur l'ensemble des problématiques de santé, d'éducation, de droits humains, de développement euh, qui aujourd'hui sont les préoccupations de la majorité des citoyens. Nous pensons que cela est important parce que le développement, il faudra le faire avec des citoyens. Et si le citoyen n'est pas préparé, si le citoyen n'est pas en bonne santé, si le citoyen n'est pas éduqué dans la bonne dynamique, si ce citoyen-là est en retard ou en déphasage par rapport à ce qui doit être la qualité de vie et les conditions de vie dans un monde évolué, je pense que nous avons une mission et nous aurons failli à cette mission-là. C'est la raison pour laquelle le Centre pour l'éducation à la citoyenneté du FSDBJ est venu à son heure pour aider et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour du cancer, parce que vous le savez mieux que moi. C'est une maladie qui aujourd'hui pose problème. C'est une nouveauté. Les citoyens ne, le connaissent, ne, ne, ne, ne la connaissent pas. Nous n'avons pas suffisamment d'informations et nous avons invité le docteur Cassé, éminent cancérologue, pour nous permettre de connaître mieux cette, cette maladie, pour enfin, dans le cadre de la prévention et dans le cadre de ce qu'il faut savoir pour se prémunir de cette maladie, que tous les citoyens puissent avoir les moyens de faire face. Je crois que c'est d'abord une faillite collective en termes d'éducation. nécessairement aussi une faillite de l'État, puisqu'il est du ressort de l'État d'éduquer les citoyens, de nous donner les meilleurs moyens et les meilleurs soins pour que nous puissions faire face. La réalité aujourd'hui, c'est que le cancer est onéreux. L'autre réalité, c'est que nous méconnaissons le cancer. nous avons appris avec le docteur Kassé qu'en réalité, si nous avions de la bonne information, il est possible de se prémunir par une bonne prévention, de se préparer pour pouvoir très tôt les dépister, très tôt les détecter. Et il existe des soins palliatifs à ce niveau-là. Et ce qui est dommage, c'est que la peur et l'inconnu font que souvent nous ne sommes pas suffisamment outillés pour faire le premier pas. vers les centres de santé et que souvent aussi nous nous rendons compte qu'à tout point de vue, que les, les missions qui doivent être celles de l'État ne sont pas suffisamment prises en charge pour permettre aux citoyens, en cas de, de, de manifestation de la maladie, d'avoir les moyens, et vous le savez mieux que moi, et le docteur Cassé l'a suffisamment expliqué, cela est au-delà de nos moyens, au-delà du moyen du Sénégalais lambda. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous sachions aujourd'hui que le paludisme n'est plus notre première préoccupation. Nous avons les maladies cardiovasculaires, nous avons le cancer, aussi bien chez l'homme et la femme, qui sont un problème pour la santé du citoyen. Et je pense que nous sommes en phase avec notre mission si le FSDBJ convoque le docteur Kassé pour nous donner les moyens de mieux comprendre la maladie et de mieux nous installer dans un système de prévention à même demain d'éviter ce désastre qui va faire qu'en somme, quand ça se déclare, que ce soit tout le budget de la famille et bien au-delà de nos capacités qui doivent être mobilisées, ce que nous ne pouvons pas faire et c'est souvent la catastrophe. Je crois que c'est les lieux. Moi, je suis aujourd'hui euh, totalement nouveau à travers cette conférence. Et je pense que c'est votre cas, c'est le cas de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Et il est bon que ceux-là qui ont aujourd'hui une autorité internationale et une expertise reconnue, que nous puissions au moins nous montrer un peu de disponibilité pour aller les écouter, pour aller comprendre, pour aller pour mieux nous défendre. Vous parlez de l'Assemblée nationale, je pense que ce qui a été fait sur le tabac est intéressant. Il y a besoin aujourd'hui de renforcer tout le dispositif et surtout de voir que notre mécanisme de soins pour le citoyen et nos centres de santé doivent évoluer pour recouper la cartographie de la maladie. Le cancer est devenu une réalité au Sénégal. Il faudrait que nous ayons suffisamment de techniciens et il ressort de, euh, de la présentation du docteur Kassé que nous manquons de manière criarde de spécialistes pour détecter euh, le cancer. Et nous manquons encore plus de moyens pour pour, pour, pour, pour curatif, pour régler ce problème-là. Et encore de cela, il y a pire, l'ignorance généralisée et la crainte que nous avons tous de pouvoir penser un instant et un jour que nous puissions porter en nous euh, ce cancer-là. Et je pense que quelque part, il y a énormément de travail à faire, et cela, pas seulement de la part de l'Assemblée, plus encore de la part de l'État du Sénégal, mais surtout un effort à faire pour les citoyens, pour avoir les moyens de prévenir. Parce qu'en réalité, si nous sommes dans la prévention et que nous sommes plus de chances d'échapper à